ñun waa Bargny di doomu Bargny muy Ousmane Seck muy taxaw sama wet muy Ousseynou Ba muy Mouhamadou Taha Samb muy Daouda Moustapha Diouf muy même suñu kilifa Mar Diouf mi nga xam ne moo nekkoon le premier maire de barñi ak njabootam ak ñëpp waa kër Seydou Diouf ak ñi fi nekk ñëpp dañu booloo fas yéene boole suñu xalaat lu tax ñu boole suñu xalaat benn bëgg-bëgg lañu am mooy njariñ Bargny benn kilifa la ñu am tënku si ñun ñëpp muy Macky Sall bu ñu amee nag benn kilifa am benn bëgg-bëgg war nañu mën a fàtte suñu bopp fàtte suñu xalaat fàtte suñuy bëgg-bëgg boole suñuy xalaat boole suñuy kantan boole suñuy pexe ak suñu man-man tënku ñun ñëpp fexe ba Macky Sall élection yi ñu jëm muy élection législative xam ne bari ñi dafa am ay jafe-jafe yu tar yu fi nekk yoo xam ne soxla nañu am ndimbalu état bi pour man ko faj soxla yooyu ñu doomu bari ñi bu ñu booloo àndandoo danañ ko mën a yeggale fa mu war a yegg mais dafay nekk ni nag pour ñu mën ko def moom li nga xam ne moom la am bëgg-bëgg mooy élection législative euh, euh, législative yi ñu jëm le 31 juillet ñu tënku ñu ñëpp àndandoo booloo dem ci quartier yi waxa nit ñi wan leen ni ñun dey lii ñu bëgg mooy bari ñi xar xaru kanamam changé li koy changé nag mooy jàppale ki nga xam ne moom la yàlla teg boppu réew mi mu yor kantan yor man-man bi mën ñoo dimbali si soxla waa Bargny soxla yooyu ñu mën ko koo diis mais pour ñu diis la ko dafay fekk li nga xam ne mooy bëgg-bëggam si ñun ñu mën ko motale loolu mooy suñu taxawaay te nag liñ si fas ne mooy ànd àndum ngor. alors tey dañoo nekkoon di def point de presse pour mën a lancer suñu campagne législative ici à Bargny c'est un jour historique pour ko xam Bargny parti yi bokk benn Bokk Yaakaar yëpp ñu ngi ci. Benno APR Parti Socialiste AFP Model, Réumi, Yesel, URD PPC maintenant, ko amul Ben parti bu ba yi élection municipale dafa cinq têtes de liste ño dañoo ba d'ailleurs ñom ñu ngi notre frère Aline Badra, notre frère Ousseynou notre frère Taxe notre frère Pam Ousmane ñu ngi fi passé boo ko bolé ko alors la bari ñi xam nañ ni combat amu fi combat bi fi dess kagn moy ñu xalaat stabilité du Sénégal législature bi dafa am solo Sénégal dafa nek un tournoi li nga xamné mo fi nek moy la poursuite du plan Sénégal émergent ñun Bargny département de dañu bëgg ñu wëyal lolu parce que dañ cee gis suñu bopp bu baaxa baax pôle urbain euh, le port minéralier le quai de pêche mais dañu namonit ci législature bi problème yi nga xam ne moo fi des président jàppale ñu ci loolu moo tax ñu xaatim kayit googu gërëm nañ ko ci li def pour Bargny lim naa ko mais dañoo bëgg bu ñu duggee ci législature bii ñëw mu jàppale Bargny ñu régler les problèmes de région côtière loolu mooy lan mooy géej gi la présence d'industries lourdes et même sociale également qui est annoncée bëgg it au niveau sanitaire soxla un hôpital soxla un deuxième lycée soxla it mu jàppale doomu Bargny yi nga xam ne ay cadre la ñu mën a liggéey ci wetam pour réaliser li nga xam ne mooy Sénégalu ëllëg loolu moo soleil réunion bi di wax ne nag mbir mi tàmbali na kenn du xeeb adversaire bien que xam nañ ne fii amuñu fi adversaire mais kenn du xeeb adversaire nañu commencé dugg ci gox-gox yi wax ak jaboot yi wax ak xarit yi wax ak suñuy jarbaat wax ak doomu Bargny yëpp les jeunes notamment et les femmes pour ñu doon benn say bokk ci ñi nga xamné ñoy gëna fal Macky Sall fi ci Sénégal loolu day yombal lepp li nga xamné ne yéene nañ ko Bargny bëggal ko Bargny mu waar jaar ci loxom parce que moom mooy kilifa réew mi loolu moo doon solo yi di ñaan ñu dem ci campagne boo xam ne jàmm ak salaam sans aucun problème ba ni ñuy demee ci cappaandaw ga incha allah pour mën a am une large victoire pour la grande majorité présidentielle fii ci Bargny